mbokk yu tedd yi ñu ngi leen di nuyu ci seen tur ci seen sant ci seen cër ak ci seeni daraja di gërëm borom bi azza wa jal ci jotaay bu mu ñu may ci tàkkusaan gi ñu toog ixwaanan mutaqaabilin ay mbokk yu jàkkaarloo ku ci nekk xoolam nekk puzzle puzzle boo xam ne pièce bu nekk xar kanamu kenn ci ñi fi teew la ñu gërëm borom bi azza wa jal mi nu may ñu toog fii di seedante lu baax ci seen mbaax ndax alkamaalu la lenn matul dara matul wante innal xasanaat yuzhibna at yéen loolu ngeen doxal jël li ngeen gis ni rafet na ngeen muure ko samay jëf yi nga xamante ni nii matul kon bu nu gërëmee azza wa jal dinañ leen gërëm yéen ñi fi teew ñépp te dinañ si dellu si incha allah ñu julli ci alxabibul mustafa sallallahu alayhi wa ala al mbokk yi kàddu yu njëkk yi dama naroon wax sax lu may teg ci lii ci wax jii man lu ma ciy teg xamuma ko ñu teg ci alhamdulillah ñu gërëm borom bi azza wa jal ñu gërëm président de la république awalan wa qabla kulli shay jiital président de la république ci ngërëm yi ndax moom la yàlla jël réew mi teg ko ci ay yoxoom mu jël loo xam ne dara féetewu ko kaw cib jullit muy le pèlerinage mu dénk ma ko ba pare yéegal ko teg ko ci benn niveau boo xam ne moo gën a kawe niveau bi mu ñu ko jëlee woon di ko teg suñuy suñuy yoxo muy niveau délégation générale loolu yi nekk lu ma sas ndax téere bi yoo xam ne man bind naa ko ci Mawlaay Abdul Aziz Dabbaax radiyallahu taala anhu wa nafaana bi barakati ca annexe ya benn décision wu ministère de la France d'outre-mer ma nga ca buy désigner Mame Alhaji Abdou délégué général au pèlerinage c'était en 1949 kon bu nu delluwaatee ba yéegal aj gi à niveau mu tombe ak ma yor woowee ma yaakaar ni barke boobee dana ma gunge ci lii yal na yàlla wàcce ci kawam ay leer président de la république nag daf ñu dénk aj ni ñu aj dafa am un coefficient social important dans notre pays damay dénk leen lii dañ koy privatiser damay dénk leen lii coono bi na wàññeeku ci pèlerin bi damay dénk leen lii mooy nañu ko moraliser nañu assainir le milieu ñu jël yooyu ràbb ko teg ko ci vision wam ambassadeur wax na ko léegi ni en deux mille vingt-deux le pèlerinage du Sénégal nanu fexe ba mu nekk pèlerinage bu nuy roy fii ci biir Afrique yàlla baaxe nanu ci seen gunge ci gis-gisu président ci jàppale ñi nga xam ne ñoom lañu nekkaloon di ko liggéeyal yàlla dimbali nañu ba am nañu lu ñuy lu ñuy roy ci ajug Sénégal mën nañu wax le portail national Sénégal mooy réewu Afrique boo xam ne wéet na ci am portaay bu niru ak bi nga xam ne moom moo nekk Arabie Saoudite te incha allah kanam la jëm avec le nouveau délégué général dinañu ci ñëw incha allah ah bi moralisation bi weesuwul fexe ba créer benn environnement boo xam ne jàppalante dina dox sunuy diggante ba ku nar tarxiis sa mbokk téye la ba ku nar sukk sa moroom jox la mbaggam nga taxaw loolu moo indi la communauté du Hajj une communauté boo xam ne ñoo ko bokk di ko tabax ci gis-gisu président de la république ñu def premier palier docteur Aboubacrine Sarr teg yeneen palier yi incha allahu taala communauté nag dafay am jamonoy déggoo ak jamonoy ñàkk déggoo waaye ay gor yi ko seqoon tax na ba su ñàkk déggoo amee ñaaw téef du am looloo di communauté communauté moo di la ma sama sëriñ ba waxoon Barham Diop yàlla ko yàlla yërëm ànd ànd rek la tudd ñu ànd ci style boobu lay ànd ànd rek lu tudd bu mettee ñoo ànd bu nooyee ñoo ànd bu dëgëree ñoo ànd bu jafee ñoo ànd ba sunu boroom rëkkal ñu jafe-jafe yi mu nekk pënd mu jël ngelawal jàmm ëf ko ko mu dem ñu gërëm borom bi azza wa jël ci gis-gis boobu le président la république amoon dénk ñu ko ba pare di ko surveiller boppam ñu gërëm bu baax a baax kii di le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur ak ministre yi nga xam ne liggéey naa ak ñoom ñu jiitu dalee ko ci Mankeur ba ci premier ministre tey Amadou Ba ku ci nekk ci ñoom jàppale nga ma digal nga ma protéger nga ma ba ci ministre bi di Aïssata ci est une sœur, parce que nous partageons beaucoup de choses. Nous partageons la patrie, mais nous partageons l'essence de la patrie. du ma ko wax fii incha allah gërëm collaborateur yi excellence Mame Baba ak ñi nekk ci ministère bi yépp dan ànd ak ñun di liggéey mbokk yu tedd yi su fekkee délégation générale président daf ñu dénkoon nañu ko moraliser nañu ko assainir nañu ko rationaliser nañu ko privatiser privatisation bi nga xam ne moom la président dénkoon ñu nekkul ni at mu nekk nañu yokk pèlerin yiy dem ci privé yi kese du woon loolu kese dafa ni nañu jël pèlerin yi li ci ëpp a jox ko privé yi mais nañu am organisation bu xellu bu tegu ci structure yu leer ak ay règle yu leer yoo xam ne dana tax communauté bi nekk lu viable maanaam nekk lu mën a gudd fan ba pare loolu ci kàddoom la baatu regroupement jógee nombre bi ci kàddoom la jóge ñu nekk ci di ko liggéey ak yéen bon mala ba ren ñi ngi doon jëm vers une professionnalisation du pèlerinage ak des quotas yu ñu leen di jox non pas pour un an mais au moins pour deux ans pour vous permettre une meilleure rationalisation dans votre organisation et dans la gestion de vos comptes d'exploitation loolu yi tamit kii di suñu frère nekk ci suñu ndeyjoor dama koy jël rek ndeyjoor dama koy jël rek ci xaqiqa parce que ci xaqiqa càmmoñ amul ndeyjoor rek a am kii ci sama ndeyjoor dana ci bay waaram incha allahu taala mbokk yu tedd yi la délégation générale fexe na ba taxawal une administration buy liggéey at ba at 24 heures sur 24 parce que lépp lu ñuy organiser de manière saisonnière suñu ko dee waajal de manière de manière saisonnière du baax dañ koy waajal de manière pérenne moo tax délégation nekk une administration permanente avec ses structures mais indi aussi ay innovation excellence wax ci léegi en terme de communication parce que wa laqad wassalna lahum al qawl benn boroom xam-xam mu ne al qawl alladi huwa al qawl la communication elle est importante moom la ñu dénkoon yonent yi communication boobu la ñu jéemoon établir avec les organisateurs privés du Hajj am benn management de concertation bu ñu def ak ñoom ñu déggoo danañu ñàkk déggoo mais dëgg rek moo doon dox suñu diggante maa ngi leen ciy gërëm maa ngi leen ci sant ci cadre communication boobu la taxawal nañu fi ay instrument site baa ngi fi compte Twitter ngi fi compte Facebook moo ngi fi ren ñu instaurer le canal d'information du WhatsApp pour toute personne intéressé par le pèlerinage ngay am les informations immédiatement bu wàccee nga mun aussi di poser ay questions directement à la délégation délégation di la di la di la di la tontu directement plus la web radio qui est là et qui va peut-être être consolidée en web TV pourquoi pa la délégation mérite lépp loo xam ne dañu ko yëkkati parce que le président de la république bu ñu joxee terrain boobu la ak ni mu ñu ko joxee ak yitte ji mu ci def jarul wax dafay wane ni ak ji yëkkati na ko te bëgg na mu yëkkati ko avec ce terrain et le projet de maison du Hajj et dans le projet de maison du Hajj lépp xaj na ci la délégation mettre na en place un SDI un service de documentation et d'information parce que délégation mënul nekk rek génn kër goo xamante ni ni amul valeur ajouté bu muy indi ci citoyenneté bu sénégalais yi le service de documentation et d'information am la bibliothèque bu fa mais mieux le service de documentation et d'information dafa bokk ci ñuy contribuer à la dynamique intellectuelle dans ce pays bi ñu nekkee ci Covid bi génne na benn livre le Hajj à travers les périodes de d'épidémie muy un livre bien fouillé bien documenté boo xam ne amul lenn loo xam ne danoo ko danoo ko danoo ko maanaam wàññi wàññeeku na lu jëm ci li universitaire yi di bind bokkoon na ci projet am ren mu génne waat beneen téere ci même akabit boobu la donc loolu valeur ajoutée la boo xam ne délégation daf ko indi les carnets du Hajj mu benn revue boo xam ne chaque année daf koy génne pour tasaare xalaatu président de la République ak naka lañ ko mettre en œuvre loolu yëpp nag bu ñu ko defee gannaaw borom bi azza wa jal gis-gisu président de la république gungewu ministère des affaires étrangères de sénégalais de l'extérieur ñi ma yàlla boole loon ñoom ñoo ko def moi j'avais le beau rôle def leen wax leen def leen wax leen bu résultat amee ñu ne délégué fekk avant délégué di prononcé ay résultats dafa am ñoo xam ne li déréglé woon ñoo ko réglé muy soog di ci délégué donc ñooñu mooy le délégué général adjoint mooy le secrétaire permanent mooy le chef de la cellule administrative mooy le chef de toutes les cellules mais c'est surtout les dames les belles dames les bonnes dames les grandes dames je ne cesserai jamais de les remercier. Elles ont apporté la lumière. Elles ont apporté la sérénité. Elles ont apporté la quiétude. Elles nous ont accompagnés de leurs bons conseils. Elles ont éteint des étincelles qui auraient pu être des incendies. yàlla fay leen yiw yàlla na leen yàlla fay yiw ci seen njaboot quand je parle d'elle je suis ému parce que li ñu def dafa yëkkatiku ci man te it nag ku gërëmul nit ñi gërëmuloo yàlla jaboot nag njabootam la am li ngeen liggéey yàlla na leen ko yàlla fay ci seen njaboot ngeen fekke ko c'est un jour où war nañu seede te alquran dafa wax ni wala taktumu shahada wa man yaktumha fa innahu aathimun qalbi moo ko nëbb yu tedd yi la communauté du Hajj c'est les grandes dames qui sont là et c'est les responsables hommes qui sont à côté mais ngeen baal ma c'est aussi des hommes et des femmes engagés qui étaient avec nous et qui sont aujourd'hui sous l'ombre d'Allah Azza wa yal na yàlla wàcce ci seen kaw seen yërmande je ne peux pas ne pas nommer Adja Dior Diop je ne peux pas ne pas nommer Baye Dame Amadou Ba et tant d'autres et mais ma tudd ñii mu yóbbaale ñu ci des ce sont des hommes et des femmes qui étaient avec nous dans la communauté di ñu jox seen xalaat di ñu jàppale ci liggéey bi di wax ak yéen di wax ak ñun ngir déggoo am sunu sunu sunu turandoo sunu turandoo Abdoul Aziz Ba bu dental daaka mbokk yi su liggéey bi yegg yegsee fii ñoom tam am nañ ci wàll nañu leen ñaanal sunu borom azza wa jalla mais yéen ñii nga xam ne li ma leen daan wax moi je suis ici de manière transitoire c'est vous la communauté du Hajj yéen a fi continuer di liggéey maa ngi leen di gërëm maa ngi leen di sant di leen wax ni lépp loo xam ne def naa ko doomu aadama wallahi billahi alladi la ilaha illa hu defuma dara pour lu naqari doomu aadama defuma dara pour luy gaañ doomu aadama mais nag li ma waxoon ministre dinaa ko dinaa leen ko répété waaw ministre ma ni ko ma madame la ministre damay wax sama njaboot ni leen kilifa goo gis bëccëg dina ñëw mu def loo xam ne neexu ko mais daf koo war a def mbokk yi kilifa wareef lay def wareef mën na metti ci moom mi koy def mais da koo war a def ngeen foog ni sunu maam Ibrahim ba mu tëralee sunu maam Ismaïl jël paaka teg ci put gi loola neexoon na ko daf koo waroon def kon nag ci biir def li ñu war a def xëy na tooñ naa ci ñii xëy na gaañ naa ci ñii xëy naa def naa ci lu leen neexul waaye ngeen jàppe ni menn mbokk la mu doon jéem a defar te droit rek waaye moom loolu taxu woon jóg maa ngi leen di balu xaq te topp ma leen àq te ma leen di wax ni li ma wax léegi man ci man la njëkkee mon cœur est un boo xam ne morceau bu nekk xar kanam la ci yéen je ne vous jamais. Et je continuerai toujours à être avec vous pour le Sénégal et pour le pèlerinage. mbokk yi sunuy kilifa Serigne Babacar Sy Mansour Cheikh Mountakha Cheikh Mahi ak seeni nawle yi nekk ci kanamu foyer religieux yi président wu association islamique non confrérique yi ku ci nekk ak gi sa cër la dañ la ko téyeloon mais ku ci nekk dem nañu ci moom mu wax ñu yàpp ñu ñaanal ñu sëñ Sidi Muxtaar yàlla na yàlla yokk leeram suma turandoo Abdoul Aziz Al Amin yàlla na yàlla yokk leeram ñii leen wuutu fii Cheikh Mountakha bërki dem rek ca Touba mu ñaanal ñu jóg di dem mu woowaat ñu ñu ñaanal ñaanalaat ñu ñooñu la ñu téyee loon aj parce que alxajju ashhurun maalumaat ayatun fi lqurani alkarim walquranu qawlullahi alqadimi albaqi incha allah chaahu chaahu شاهو <laughs> shaahu kon ñoom ñi nga xam ne ñoo ñoom la yàlla dénk ñuy saytu diine ji aj di diine ñun ñoom lañ ko yoreeloon suñu ko rafetalee alhamdulillah su amee lu ci rëcc dinañ leen ñaan ñu baal ñu mais jéem nañu li ñu mën te ngeen baal ma guddaay bi suñu benn baay dafa wax ni nit bu defee li mu mën kenn mënatu ko parce que kenn weesuwul li nga mën mbokk yi def nañu lu ñu mën ba tey ànd ko ak yéen tey nag tey tàmbaliwul tey mi ngi tàmbali dem wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas moo ñu jiitu ñun ñépp yàlla mu wax ci alquran ni bis yi maa koy wëndeel ci biir nit ñi ku nekk dangay am bis booy moome <laughs> kulla yawmin huwa fi sha'nun yubdihi wala yabtadihi ngi doon alquran dafa am benn aaya wax ni lépp lu wàcc ci yéen maa asaaba min fi l ardi fi anfusikum illa fi kitaabim min qabli an nabraaha inna dalika ala allahi yasir mais li ci tegu mooy lu am solo suñu borom def ni lii ngeen gis sa manifestation temporelle et temporaire aujourd'hui avant que ñu koy wàcce di ko déli di ko dérouler nee na bindoon naa ko je l'avais consigné dans le livre éternel mais li mu ci teg moo am solo li kay laa tasaw ala ma faatakum wala taxzanu wala tafraxu bi ma aataakum li kay laa tasaw afin que vous ne vous affligiez pas sur ce qui vous échappe le 19 avril 2016 j'étais professeur Abdoul Aziz Kébé conseiller du premier ministre le 20 avril 2016 j'étais ce même Abdoul Aziz Kébé ajouté délégué général au pèlerinage ce 20 avril boobule avant que Dieu di koy manifester bindoon na ko fële mu ne loolu mu ma joxoon bu ma ci exulter wala tafrahu bi ma atakum afin que vous n'exultiez pas sur ce qu'il vous a donné le 9 février 2023, j'étais Abdul Aziz Kele, délégué général au pèlerinage. Le 10 février, je ne suis plus délégué général au pèlerinage. bee ci bii mu jeex wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna naas tabaarakallah ñu gërëm yàlla julli ci yonent bu tedd bi gërëm président de la république gërëm ministre gërëm samay collaborateur mais gërëm la communauté du Hajj mbokk yu tedd yi ci nekk ci sama ndeyjoor encore une fois ci xaqiqa lay waxe te xaqiqa amul càmmoñ kii dinaa leen wax lenn balaa may dikk ci moom wallahi alazim ak waxtu yi dama dem Makka def umra bi ma defee sama tawaaf taxaw ci maqamu Ibrahim julli c'était en 2017 ou en 2018 julli ba pare yëkkati samay loxo ñaan borom bi azza wa jël yàlla na ma yàlla defal aj gi fekk maa ngi koy yore yàlla nay tegu ci yoon ba ma ko waxee ba pare la ruus pourquoi pourquoi may wax fekk maa ngi koy yore pourquoi may kan ci saa si mu tuub pourquoi parce que aj ji diine la te diine yàlla moo ko moom mais ak ji cëru Sénégal te Sénégal ku mu ko dénk doomam nga tey docteur Aboubacrine Sarr lañ ko dénk tawfiq bi ma yàlla defaloon yàlla na ko ko defal yàlla na ko ko yàlla defal pourquoi il y a que deux paramètres la patrie c'est le Sénégal Sénégal mooy sunu ndey ñun ñëpp kan moo war a yéene leneen lu dul yiw sa ndey Sénégal mooy sunu ndey ñun ñëpp cette mission ci la mission du Sénégal docteur Aboubacry Sarr est un digne fils du Sénégal الرسالة رسالة الوطن أولا ورسالة الوطن يتحملها ابن الوطن وهو min abnaihi alladina naftaxiru bihim wa naatazu bihim bi ci des c'est une mission de l'islam mbokk yi ñun ñëpp jullit lañu te jullit bu ndigal jotee lu ciy tegu def wa atimul xajja ndigal la ndigal loolee nag tey moo koy saytu xam naa ko dem 2015 ñoo bokkoon tànt ca mun na tëdd ci suuf amuloon woon matelas mbokk yi délégué général délégation générale moo indi woon matelas yi te danaa wax ni ko na ko dindi 2015 <laughs> ñoo bokkoon tant ca mun na muy indi ay teraangam di ñu ko jox 2016 ñu nommé ma délégué général te wax naa ni man képp koo xam ne màkk laa xamanteeg yow diggante boobu dama koy sàmm parce que foofu c'est un lieu sacré c'est un sanctuaire 2016 ñu nommé ma ñu teg ci tuuti ñu nommé ko mu nekk consul ànd ak ñun ci liggéey ba suñu boroom def ko mu nekk ambassadeur Égypte dellu siwaat fii këram la fii néegam la fii mission am la nit ñi fi nekk ay nitam la kon délégué général xamuma ci moom lu weesu nit ku baax disponible bëgg def teraanga doomu aadama yi généreux et très engagé pour la patrie waa mbokk yi inna allaha laa yudiu ajra al muhsinin nekk na ci alquran wala laa yudiu ajra man ahsana amalan nekk na ci alquran su fekkente ni nii loolu mi ngi ci alquran yàlla nee na du sànq jëfu ki nga xam ne def na lu rafet yàlla jëfam la ko fay yàlla na jëm kanam excellence dama bëgg siiram dal seen kanam yi <laughs> balaa ñuy tàggoo <laughs> moo tax wax ji bari <laughs> waaye alhamdulilah ala kulli xaal wa naudu billahi min xaali ahli naar ñu sant yàlla julli ci yonent bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam gërëmaat président de la république gërëm leen gërëm ministre ñaan borom bi 2023 yàlla na nekk ak goo xamante ni dina mucc ayib ngeen def ko si ginnaaw délégué général docteur Aboubacry Sarr dellu siwaat ci Sénégal ba Sénégal yëpp wax ni vive la délégation sous la direction du délégué général docteur Aboubacry Sarr ak collaborateurs yi nga xam ne ñoom la àndal. fu ngeen féete fu ngeen jublu seen ndeyjoor seen càmmoñ cette fois-ci dans la réalité traditionnelle temporelle. seen kanam seen gannaaw ci kaw ci suuf yàlla na leen fa seen borom féete yàlla na ma fa féete asalaamaaleykum لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك